basuma depuis ci suba sama connexion nanguwul mais nangu na alhamdulilah basuma mbare la jeunesse newoon nañ leen tey la tey balaa midi war nañu tàkkali kooku waa ji ñu ngi leen naan ñu ngi wër diw ñu ngi wër diw ñu ngi wër diw dañuy fenn xam nañu fu met man gañ gañ démb ture nekk dem nañ fa léegi xam nañu résidence bu Juan Branco nekk dem nañ fa léegi ndax Juan ko fi mu nekkoon ñoom mënuñu ko jëli mais génn na fi mu nekkoon pour dem tribunal moo tax xëy na ñu koj ko ci yoon bi xëy na ñu koj ko jéem ko jàpp-jàpp la loolu ñoom kese la mais loolu yëpp ay film la ak ay machination armée ñu ngi tëj côté RTS tëj dinaa tëj fépp mais armée bii tëj yéen boo leen yeggee si ñoom armée bi nungu RTS yéen boo leen yeggee si ñoom armée bi nungu aéroport yi yéen boo leen yeggee si ñoom armée bi nungu orange live yëpp la ñuy coupé ñu ngi wax rek de réseau mobile yi nag buñ ko coupé na ku nekk jël responsabilité ndax fixe yi sax daañu ko coupé la jeunesse paralysé tout explosé tout boo leen songoon nii sorti Tëngéej Sococim Bargny bloqué fa ñaari camion génn ñett ngeen taal ko fa Sococim di ngeen xam yeen Sénégal ñaata la leen multinationaux yi di sàcc Sococim boo ko taalee day tàkk ba cinquante pour vous ko que Sococim day exploité à partir de Tëngéej romb Bargny ba cinquante calculer leen bu biir Thiès carrière yi Sococim mu ngi exploité foofu tey bu Sococim tàkkoon ba autoroute à péage bi laa la wax day romb léppay tàkk parce que su suuf lépp ñoom ñoo koy exploité ñoom ñoo ko moom ñoom tubaab bi yéen Sénégal kenn mosu leen wax loolu istam bi fa la ñuy lekkee xaalis bu leen foog banque yaa ñuy viré xaalis déedéet rajo yeeg télé yi doo leen dégg kenn du wax kenn du wax parce que seen subvention yi Macky Sall bloqué woon 300 millions par an yooyu Sidi Lamine Niass daan yuuxu ba ci patron de presse yu ndaw yi ñu jox carte de presse seen patron yi seen kilifa yi dañ leen woo jox leen seeni subvention

ñakul fayda ñakul fayda Sonko ñakul fayda de demul de demul parce que Marème Faye Sall war jox mu lek par force te Sonko du lek lek maram Faye boy na yi nag commencé nañ tal fépp soit ñom dinañu xex ak ko yobbu ko bureau des juges par force wala ñu jëm ko mënate raag ak mom def ko ci auto par force mais Sonko il ne va pas se laisser faire bii pas da leen woon ne yéen nekku leen ci justice te il ne va pas se laisser faire Motax ciowli jarul dem tribunal lijjanti Sonko Sonko mu ngi lijjanti bopam fofu il va se défendre Tay lay lepp di leer diggante moom ak yoon Tay lay leer Ma xam jàllo bu def lo tay Sonko dëgg ndeyam arrêt mu jeex ñu toj ko pour de bon ku nekk dem je vous ai averti xam Diallo su recevoir tay Sonko wax wax bu ko dépasser Sonko deug ndayam te avertissement maître d'or lay leer rek tay la tay na ku nek jël ay responsabilité mu wax da len ko ça fait une semaine man len il est temps que chacun prend ses responsabilités tay la tay yeen la jeunesse militaire yi nak depuis dem yoni nañ ma mais comme KS of jàllale na ko moo taxoon ma ne garaawul on passe mais liñ ma wax c'est clair et net ñoom ñëw tëj foofu yëpp mais militaire yi tëj foofu yëpp du ma leen nëbb de ku leen téeree bal militaire yooyu dëgg ndeyam ndax Marème Faye Sall ak Moussa Fall dañu am seen armée bëgg ko imposer ci kaw armée état Sénégal bëgg ko imposer ci kaw seen armée yéen Sénégal teg ko ci ndoddu gendarme yu toj seen cottu ndey yi man toujours gendarme moom laa mënatu respecté séexlu naa sax kuy sol tenue bleue séexlu seen formation ndey cottu ndeyam doonu leen ko biir Sénégal yéen sama booy gendarme capitaine yeeg su lieutenant naa yeeg yéen ñëpp laay waxal seen lëfal ndey saa boo leen yeewoo pour wan leen ne man mooy loolu ay doomaraam ngeen ay jaaykatu puub ngeen ay góor jigéen ngeen tey du bësu xaar booy gendarme boo leen jekk gis nga oto bi bi ngeen taal noonu ci autoroute bi Otobenen benen bo len jekku muri gendarmerie nationale ki yep lak len dayam brigade de gendarmerie gendarme bo len fa fek lak len dayam ma ngi gis nak ñu commence publier naan boy ay pistolet lañu toje tojee auto yi vous n'avez rien compris xam nga luñu toje tojee auto yi li mo tuddu sox soxor auto bu ci jëm traverser forcer yone bi ñu bënn say roue combat bi leneen la len du stratégie yep lañuy joxe fi sux suxóor yi ñu ngi fees dell ci autoroute yi di ngeen taxaw par force mbaa ñu sux suxóor ndeyu oto yëpp pënu oto yëpp bën li ñuy taal ñu taal ko te yéen la jeunesse maa leen di joxaat beneen affaire ah, loo leen romb na tàkk désormais xoola bitik magasin ku ubbi amul yàq alalu jàmbur ndax ñoom dañuy dund suñu kaw suñu deret la ñuy dundee système bi amatul yàq alalu jàmbur yàqu leen alalu kenn bitik yeeg yëpp assurance dañuy fay assurance patante yi ngeen gis dañuy fay assurance ana xaalisu assurance boobu si la système bi di dund ci la état di dundu ci la TFM di dund ci la El Hadj di dundu tey ñu ngi nii tey nekk ñoom di def seen galayaabe jël Ousmane Sonko war ko defeere war ko tëj toroxal ko par force ay sàcckatu xaraamata Ndiaye ay doomu drogué ay kattukatu jabaru jàmbur war ba pare ñu ngi def seen Loroya fële ah, grand théâtre yéen la jeunesse c'est eh, Loroya am na grand théâtre bënn leen même grand théâtre taal leen ndayam lu fi république bàyyi woon gouvernement libéral katt leen ndeyam tey lay jeex tey tey ngeen mu jeexal ak Macky Sall lu leer laa leen wax bu jeexul tey mu jël avance si ñun tey la réew mi mun a mu jeex Sonko il ne va pas se laisser faire te dinañ ko toroxal tay tay tay. il ne va pas se laisser faire avocat yi wax nañ il est très serein mais lim leen wax c'est clair il ne va pas se laisser faire Maham xam jallo bu ko waxe lu ko waxu wax dina saaga ndeyam te lolou ciow lay jur ci bir bureau bi ndax dinañu rag buñu ñu ñaari wala wa GIGN ñom ñoo andi ma xam jallo bir bureau kenn du ko prison si ay fan sonko du ko nangu wax na len ko muy leer buñ ko blessé nak mba ñu def ko ñu defon mankabu ndax ñun ñun ñëppay ñak dee Ben yoon la su dee bu joté ak su dund bokul tay boy ñu ngi ci terrain bi génn nañ ba paré yeen mag ñi ak jigéen ñi yéen ñaan gën gën région marche vers la palais Sonko baylan ko fu nekk il va régler son compte seul il peut le gérer seul. kër Sonko yeen garde corps yi bu leen ñu fonto ah. yeen ñooñu garde yi xool bu leen ñu fonto du fa kenn duggati point final portable bi sey na point. portable bi nar a tax ni ñu bàyyi Sonko wax nañ ko ko démb si guddi bu portable bi feeñul kenn du ko bàyyi portable bi lëfal ndayam lañ leen dul jox information yi si nekk regardant Marème Faye jot ndayam lañ leen dul jox booy na lépp tàkk lu tàkkul rek suñu defeet lay doon ñun Afrique ñëpp a mer fu mu toll dem leen ci live africain yi ñëpp ngi wax ku nekk naan ma Sénégal ndax dëkk góor ngeen tey joobu ma maa ngi sama nekk kan ngeen ma gëj a tey joobu ma

li ñuy bañ dañ leen koy wax muy leer Sonko moo wañoon suñu loxo yaakaar ne Macky Sall day dégg day dialogue Sonko moo wañoon suñu loxo moo wañ loxo armée tey Sonko moo wañ loxo armée sinon le 3 juin bi passé seen coupure courant bu mag a mag boobu armée jëloon na ndey réew mi lii lañ ko waxoon nag ne newoon nañ ko bàyyi ñu ñu lekk seen ndey mu ngoog léegi nag coow laa ngi nii suñu kanam Touba gis ngeen lu fa xew yéen Touba ñu ñu ngi ñëw léegi yónnee nañ délégation ñu ngi ñëw depuis démb wax naa leen ko no lan la sëriñ bi def jël ay Baye Fall andi leen Mbàkke poste avancé pour manifestant dinaa dóor seen ay bal bu fekkee Cheikh Rafal daf nekkoon nii ngeen mën a mel yenn Baye Fall bi nii ngeen mën a mel sëñ Touba fii la jóge géej tubaab bi toroxal ko sëñ Bamba fii la jóge géej tubaab bi toroxal ko dóor ko résidence surveillée ba nu mu décédé ban Baye Fall mo ñame won xex dem jëli ko imbécile que vous êtes tey ngeen ni xeex pour défendre ay doomi góor jigéen ah kon Serap Fall fi nekkaloon di xexal tubaab yéen ay doomaraam yéen ñi ki vous prenez pour des Baye Fall nekk fi di dor boy sen bop di toj dina dor sen ndey ay balu fetal tay bala guddee jot Baye Fall bu ci dor boy na toj sa cottu ndey xam ne Fall nekk fi won di défendre ndeyu ay tubaab le lëfal ndey neub ndey ay góor jigéen biir Touba. doomu cott ndey mi ngeen doon yéen ngeen ne yéen Cheikh Fall daf fi nekkoon ma xalaa doomu góor jigéen ñi ngeen doon Camara fii la système bi téye sëñ Bamba tëj ko rap ba nu mu sàngoo suuf wax leen ma ban Baay Faal moo amoon fitu jël nday seen kuur ne da ngeen di dóor tubaab doomu cott ndeyam tey ngeen di dóor ay doomu jàmbur ndax dañuy xeexal ndax dañ fi bëgg a génne tubaab boobu tëjoon sëñ Bamba ba rey ko ah li tubaab bi defoon sëñ Bamba ngeen bëgg ñu def Ousmane Sonko jël ko tëj rey ko du fi amee kenn du ko fi reyee yéen a fayda ba ñu tejj seen bamba mënu leen ko gis jurbel ñàkk ndeyu fayda ba ñew di rawale koram à travers seigne Moustapha da ngay na sacc koram yobbu ko histoire dañ koy wax seigne bamba murit gi dañoo sacc koram yobbu ko mais bu tubaab bi ne dessé dana bi heure duñ jot ci koram bobu ana yeen Baye fali ana ngeen won imbécile que vous êtes Damara tay ngeen di défendre Macky tay di dor ay xalé di toj dina dor sen tay ay balu fetal ku la nax dëgg ndeyam dinaa dóor seen ndey ay balu fetal tey tey Mbàkke Cheikh Coro Mbàkke yee eh, toogal tuuti ñu ngi ñëw boo yaa ñu yegg si seen lëfal ndey ne ñu ay xale ñu dóor leen ay kii daamaraam yéen ñu tëj sëñ Bàmba Jurbel ñaata at 1902 ba ban at yóbbu ko gànnaar foo leen nekkoon fu seen baay nekkoon yéen ñi di dóore tey daamaraam parce que seen baay yooyu ngeen doonu tey ay traître la ñu woon ay daamaraam la ñu woon moo taxoon ñu bàyyi sëñ Bàmba ñu yóbbu ko gànnaar moo taxoon ñu seetaan sëñ Bamba ñu yóbbu ko fépp loolu ngeen bëgg a defaat nii depuis quatre ans ndayam amee Sonko dañ koy défendre génnee ko ci lii mu leen ni neex ndayam mu leen ni naqari système bi ngeen xoole ba ñu sànq sëñ Bamba ñun duñ ko xoole secret yi sëñ Bamba yu si bëri xamu leen si lëfal ndayam xamu leen ko secret sëñ Bamba yaa ngi fi tegu li ma ciy liir dama jommi sañu leen ko liir imbécile que vous êtes te ngeen ñu dóore pour defendre ay góor jigéen yéen est-ce que sañ Bamba lii la jàngale ci Baye faal défendre ay ñitu nguur

léegi xeex bi eh, yéen la jeunesse na si acide bokk ah foog acide yi bokk ci. Touba moom yónnee nañ fa ngandam délégation boo yaa ngi ñëw da ngay ni xeex rek ñu ngi ñëw nañu kattan ndayam ba dugg biir Touba dégg nday magasin yi ñu xam kan moo si mun dara. tey leen ngeen ni woon xam nga ñu dañuy maslaa fii naan leen duñ ci laal sëriñ si ndax xoola ngeen ba ñu rey sëñ Bamba Bamba da ngeen xoole ba tubaab téye lekk joxu leen ko lekk ba tubaab jox ko tooke ci ataaya ci warga lañ def tookeem imbécile que vous êtes yeugulen yoy yeb tay ngeen ni doore ndax Macky Sall ngeen neub ay ministre ndax ñom Marème Faye Sall ngeen ni neub seen alal ak seen auto oto biir Touba ngeen fokk eh boy ministre ak ñom ñep seen lu bari daw nañ ko nëbbi Touba ndax affaire bi préparé wuñ ko woon motax ñu andi Baye Fall yi ba Mbacké Mbacké nak république la ndayu kenn momuko baye kenn momuko Touba si bopam Sëriñ Bamba moomu fa dara du dul superficie jumaa ji te superficie jumaa ji noonu carré carré boobu sëñ Moustapha moo ko fay ak xaalisam sinon sëñ bi néegu ñax la fa amoon ab àll taax la woon man j'ai lu newoon naa leen sëñ Touba Jurbel kese la moom Touba moomu ko ab jumaa la fa am te sëñ Moustapha moo ko jënd ak xaalisam ana kër bu ñu la naan mooy kër sëñ Touba Touba amu fa Jurbel la am kër titre foncier sëñ Bamba mu ngi Jurbel Touba

la jeunesse défendez-vous ku leen dóor katt leen dayee man ki ki à bal fetal yi tàkk fu mu yem neex léegi comme ay terroriste leen fu mu yem neex tey lañ leen ne woon ne tey Macky Sall mooy terroriste mais attaqué yéen ñi nekk Dakar affaire baa ngi progressé demal leen ma RTS dem palais de la République bu leen calculer te moom booy yi tëj leen bar ñi dëgg nday Sococim yéen waa Kër Massar progressé leen mbaaw raffinage bi ñuy defaree pétrole mu ngi foofu yéen waa Kër Massar progressé jusqu'à mbaaw tàllee ndayu foofu yëpp après le reste dañ koy defaraat defar sa vie